Euh, asalaamaaleykum seetaanateur yi yéen a ngi ci Hann TV euh, seen émission euh, ganu koor gi oustaz bi ñu fi dalaloon fan yële passé mooy oustaz bu ponkal bu ngande bi bu international bu mondantal bi moom la ñuy dalalaat tey jii muy oustaz Abo oustaz Abo ñu bàyyi la nga nuyoo. maa ngi lay fay maa ngi fay ñëpp. waaw oustaz tey moom ni ma fayee nii moom xaw na doy waar de mais oustaz dañ fay amoon ay laaj ci benn xale bu jigéen la bu tudd Sala Kebe moom moo ngi dëkk Tivaouane pël nee na moom célibataire la waaye soo gisee xale yu góor yi day dox di mbiij di war mbiij waraa mbiij man maa ci yokk ndigal a gësam ma xam nag loolu loo ci xam. affaire am la moo kap ah. ah xanaa da bokk golo gi tey. bokk nekku ci. waaw sala kebe yow maa ngi lay tontu député waan pël sala ci téere bi ñuy wax naan wut jëkkër waaw dafay dagan nag say dox di gis ay góor di war mbiij di waraa mbiij am na góor ñoo xamante ne tey jii lan lañ gën a bëgg démarche ñenn ñi biiñ ñenn ñi melestiku ngay génnee tuñ di génnee làmmeñ yooyu moom moo la gën a neex sala li moo nekkoon sa tontu sa promo la day tax nga am jëkkër nag waaw baax na ci téere wut jëkkër fa laa ko jukkee eh, ñaareel laaj bi mooy kii nii dafa ne daa am benn xaritu papam bu mu bëgg a porter plainte parce que kooku dafa lekk xuru papam papam waaw maanaam mbokk yi soo leen déggee xuuru papam papam dafa rayoon xar jël xuuru xar bi tegee ko à côté xaritam bi lekk ko léegi mu bëggoon koo porter plainte ndax moo lekk xuuru papam oustaz Abo loo ci xam. na ko laaj papam moo xam. waaw xale bu góor bi yow mi ñu lekk sa xuuru papa instant bi nii nii nii nii li ma lay wax mooy ni que ci diine lislaam lañ nekk te baalante ak ci weeru koor gu màgg gii la nekk kon boog li ma lay ñaan daal mooy daal nga baal sa xaritu papa boobu. wari nga yow mi wari nga yow ana wari wari. non xuuru papaam la la mooy xuuru xar boobu. boobu laay pa mu tëgg ko danga bu xar bi rek. waaw xuur xaru papam la. Macky Sall ba fekk la fi. Ah, xale bi loolu laa lay ñaan nga daal koy jéegal rek ndax sa xaritu papa sa papa la waaw beneen laaj bu ñu fi amaat mooy kii benn xale bu góor la bu tudd Mbay Kebe moo ngi dëkk ba Tivaouane Pël nee na daal léegi tànn béer yeeg sabar yi neexatul ndaxte moom jigéen ñi baa la ñuy sol te moom da doon taxaw ci ginnaaw tëggkat yi maanaam di duufal bët waa xale bu góor bi li ma lay digal yow Mbay Kebe mooy ni que ci téere bi ñuy wax naan yàqu waaw da ngeen di def marche ñu fiy dugal baay yi nga xam ne lépp a waaw ngeen daal di def ngan di ma marche mu bañ a dugati ah, yaakaar naa ni yow sa tontu leer na. kii beneen laaj la oustaz abo yow bokk golo gi kii beneen laaj la xale bu jigéen bi moo ngi tudd Ayta waaw Ayta ah, Ayta Ba waaw nee na moom nag day sol ah, baa bi nga xam ne dafa am ay grillage yooti jëkkëram par weeru koor ci guddi gi ma xam loolu dagan na wala daganul oustaz grillage baa grillage quoi. grillage weñ wala grillage ban. non baa tubéy la bu ñuy sol bu am ay bën-bën. bu ñuy saafee yàpp. déedéet du pour yàpp de. kon boobu baaxul. oustaz xamoo dara maa la ëpp xam-xam waaw yow euh, Aïta moom noonu li ma lay tontu may ne dafa baax lool lool nga sol ay bagirage ñii defar bagirage nag suñu mënoon yokk bën bën yi bën yi bën bën yi di gën a ngande di gën a nekk ay pax daal ngay jaagar jaagar sa kanamu jëkkër yaakaar naa ne loolu dina dagan nag loolu maa ngi ko jukkee si téere bëgg sa jëkkër waa amaat nañ fi beneen laaj nag euh, bi ñuy wax kii ko laajte moo ngi tudd Sadam Sow Sadam Sow Sadam Sow lu mu laajteeti. boobu affaire lay la xam naa xam nga xale boobu. xam naa affaire caga yee moo ne caga weeru koor baaxul yow soo bëlee affaire caga nga fi wax moo tax ma xam lépp rek man ma noppi. waa seetaanateur yi caga yi ñoo ngi tëj tey jii sunu émission ndax Oustaz Abo dafa bokk golo gi Oustaz comme da mer kon loolu la. kon yees. kon boog yes wasalaam ñu joxante dig daje ba beneen.